dama génn conseil constitutionnel le 15 janvier journaliste yi tàllal ma micro ma wax ko ba ma demee tubaab dafa am lu mu woowee baru d'honneur c'est-à-dire que décision bi génn na le 20 sama recours jàllul le 21 ci laa def sama dernière déclaration ci pare ma wax ci ba Sénégal yëpp xam ne kii dañ ko tooñ ca ngeen ma gëj a dégg ma wax mbirum wax boobu fa nga xam ne fa laa nekkoon ci ñu ma doon liggéeyal collectif yi am na ñu ma ci ànd ak ñoom bokk ay xalaat mais ba ñu teg mbirum report ma xam ne man bëgguma report mais ci laa ci génne. bërka démb ci beneen média nettali naa affaire audience bi ni mu demee ba ñenn ñi di ci am suspicion. Sénégalais yi dama bëgg mu leer que ne man lettre boobu dem ci Macky ñu koy reproché collectif bi mais bañ koy bindu Mansour man j'étais même pas membre du collectif. waxuma nekkuma fa de j'étais même pas membre du collectif. signé wu ma ko. léegi kay la question que les Sénégalais doivent se poser et je la présidence man sama kër laa toog. sama téléphone sonné muy un très proche collaborateur du président de la république mu ne ma lettre bi ngeen fi bindoon yéen spoliés yi Macky daf leen di recevoir ginnaaw suba mercredi ma reetaan ma ne ko mais yéen lettre boobu man bindu ma ko signé wu ma ko sama tur nekkul fenn ci lettre boobu pourquoi ngeen may woo man mhm. il aurait apprécié bon, après avoir quelqu'un comme vous après je vous épargne les détails mm -hmm. mais puisque ci man lañ jaar mhm. envoyé ma lettre bi mais man maa convoqué collectif bi ñëw na leen ah man xaw ma nag lu tax mais man nii daal Macky Sall na ma ne daf leen bëgg recevoir ba ñu defaree loolu ba wax kan mooy dem ak ku dem ci biir assemblée générale bi nee leen man du ma dem. donc bari na ci ay coow. pourquoi ñu woo Abdourahmane et cetera mooy yi rek gis nga man duma ma bàkku yàlla suturaal na ma ba léegi defaguma fi. waxaguma fi loo xam ne samay noon wala samay adversaire dañ ciy teg loxo ne Abdourahmane moo fi def lii léegi puisque loolu amul gars yi dañoo jonkan dañoo jonkan di yeeru di xaar xam nga yeeru moo boobu di yeeru di xaar Abdourahmane def erreur moo tax lu ma wax loo xam ne d'accord duñ ci rek dañ koy jël di ko ñoddi mais nag yàlla mu muy suturaal boobu ba léegi mm-hmm. mais demuma ci report demuma ci dialogue te man quand je des positions c'est des positions assumées man Mamadou yow suivre nga sama trajectoire man pratiquement fu yoonu nguur bi jaar jaaruma fa man boo xoolee sama histoire 2013 11 septembre 2013 laa commencé nekk opposition ak Macky Sall la jëlee xam nga loolu yàgg na mm-hmm. te yow wóor na ne bari na lu fi jaar loo xam ni mm-hmm. waroon naa mën a dem liggéey ak ñoom mm-hmm. xam nga ko même ñama àndaloon ba ñuy retourner di dem liggéey ak ñoom mënoon naa liggéey ak ñoom beaucoup de gens me disent que boo bokkoon Yewwi Askan bi peut-être je dis bien peut-être tey yow yaay doon député maire de Rufisque parce que conférence des leaders nga bokk. Mhm. mais koo xam ne pouvoir ngay wut di nga bàyyi opportunité yooyu yëpp nekk ci opposition bu metti bi ma nekk nii. tu sais que tey man peut-être loolu mooy sama mérite ak Awalé tu sais man du ma ministre du ma premier ministre du ma DG du ma maire du ma conseiller du ma du ma dara gis nga Sénégal tey joxuñu ma fii un mètre carré de responsabilité amul lu ma yor Sénégal tey di ko gérer. pour le moment. Mhm. pour le moment. d'accord euh, mais maa ngi maa ngi bokk ci candidat yi nga xam ne ah peut-être nit ñi amoon nañ ci ñoom yaakaar. Mhm. te pourtant yoruma benn institution. aja mhm. yoruma benn budget. mais avec le peu que j'ai maa ngi imposé wu moo tax le fait aussi que ñuy wax ne amuñu adhésion populaire. c'est à relativiser. damay tooñ gars yi souvent ma ne leen ah peut-être que ëpp ma fi électeur. mais ci homme politique yi fi ëpp ëpp sympathisant ci laa bokk. Ah, loolu nag dina mës a mu nekk.